الحمد لله ذي الجلال والإكرام الذي جعل صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام وأنزل فيه على عبده وحبيبه الكتاب المبين تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى mbokk yi jullit yi ñu sant yàlla di julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni ñu ngi waajal gan bu tedd weeru am daraja mooy weeru koor nga xam ne suñu borom ne ci la wàcc alquran al karim weeru yiw weeru barke weer woo xam ne traite ci lépp muy def bu baax lépp muy njéggal xam ne jullit bi daa war a waajal boppam ci jéggalu boromam ak taxaw tuub bu dégtal ceeb laagal xolam ba mu bu bu dee ndax ñu raxas ko ba mu set nga xam ne may yi nga xam ne dana wàcc ci weeru koor su ñëwee mu mën taatal bu baax baax fan yu mujj yi ci euh, Shambal kenn bu ne war naa jéem a jóg ci càggante ak tàyyeel bàyyi ay caaxaan laabal xolam ci euh, lépp lu jikko ci bon lu mel ni ay bañanteeg ñaananteeg yu yëpp kat boo jéem a laabal xolam ba nga xamee ne bu bu ngelawul ramadan ñëwee fekk xol bu set wecc set ba mu mën a euh, am ci leer yi ak secteur yi nga xam ne weeru koor am na Cheikh Oumar Cheikh Ahmadou Khadim sa ku daan waajal weeru koor bu Chaabaan ñëwee da daan dégg murid yi ci sax ci tuub ak di sax di bàyyi xel seen borom kenn bu ci ne di waajal weeru koor wàññi jaxasoo bu metti bi kenn ku di waajal dem di jëf lu baax daa wax ne na sax ci di nemmeeku seen xol yi day nemmeeku xolam ba xam xolam nii mu mel bëgg na mu faatoo ni wala déet waaye say cër itam nga xool ba xam ndax li la yàlla sant yaa nga ca wala déet euh, lam la tere ndax yaa ngi koy bàyyi wala déet ndax nee na Euh, noon bi muy Iblis yàlla na yàlla musal ci moom xam na ne léegi ñu tëj ko ndax bu weeru koor bu géer dañ koy tëj dootul mën a def dara moo tax nag fi mu toll nii ci weer wi bu chambar surtout fan yu mujj yi day xeeb lool ci yàqal na suñu diine ji euh, ci xol yi euh, njëmbat moo xam ne dana màgg ba kenn du waa ji nga xam ne moom lañ ko ji ci moom du ko mën a far su weeru koor yooyu bu defee xol bi dootu mën a set ba mën a dékku leer yi nga xam ne nii man yi nga xam ne weer boo am na kon nañ ñaan bu baax a baax a baax te musul itam iblis bu baax a baax a baax te di ko bàyyi xel euh, xam ne ab yàqkat bu mag la xam ne ne weeru koor bu ñëwee dootu mën a def dara waaye weer wii di bi si day fexe yàq lu baree baree bare ji fi ay njëmbat moo xam ne nit ki balaa gimmi rek daanaka weeru koor solo woon mu jeex nañ yàlla musal ci moom mbokk jullit yi ñu xisaab suñu bopp balaa ñu ñoo xisaab kenn ku ne na xoolaat boppam ndax lu la waaye mën a wax ni ku ne moo gën a xam boppam kenn ku ne na toog xoolaat boppam lii wéy ci at mi ndax li mu war a def def na ko wala defu ko te it bàyyi xel ne euh, adduna du sax waaye euh, kenn ku ne xam ne ne kenn xamul euh, kañ lay ñëw kenn xamul fan nga ko def kon loolu la demee nag saa su ne nit ki daa war di sax. ci tuub tuub ko sell tey bàyyi xel charte yi nga xam ne tuub ko sell am nag moom ci sëñ bi leeral bu baax baax mu ngi di rëccu bàkkaar bi tam nga bàyyi ko ca saasa te bañ a nuur ca bàkkaar yi te fas yéene yi dootu di delluwaat te bari loo jéeg lool astafurlah kon mbokk jullit yi bokk na ci waajal weeru koor itam nga fàttaliku waat nga xam ne weeru koor am nay àtte ndax mu kàllafooti def lenn mu xamul xam ne weeru koor ñaari farata farata bu jëkk mooy yéen yéene dina nag mooy jullit bi ci bu ñu nee weer wi feeñ na fas yéene weer woor weer bi yëpp bu fekkee ne nag dafa am ndox ci diggante bi mu mu bés bis bu set war naa bis bu set jërut muy yeesalaat yéene bu fekkee ne su dul loo xam ne nag dafa am ab dog-dog ci diggante bi lu mel ni daa feebar wala daa tukki woon ñoo bëgg a wooraat daa war a yeesalaat yéene beneen bi mooy mu bàyyi lépp loo xam ne day dox lu mel ni lekk ak naan ak ñu dem noonu tàmbalee ci fenk fajar ba ci euh, jant bu yi ne gaaw a dog euh, bu jant bi sowee na waaye yonent nee na woon nit ñi dañ di nekk ci aw aw yiw jàmm fépp rek ñu ngi gaaw a dog yéex a xëdd euh, bokk na ci gaaw a dog mooy dëgëral ngir mën a julli ndax xam nga ni koor yendoo xiif jekki-jekki di julli noonu te mosoo dara moom mën naa am néew doole boo xam ne li nga war a jaamu yàlla sax mën naa des waaye itam wuuteeg yahud yi nga xam ne ñoom dañ daan yeex a dog euh, te ñu war a wuuteeg ñoom ngir wane ak dëgëral wane ne ak taral te diine du tar-tar borom bi ci am solo rek mooy ragal yàlla bi nga xam ne tax na bi mu ne nee bàyyi lekk bàyyi naan sàmmoon dinaa moom mu ne mën ngaa lekk mën ngaa naan nga tàmbalee lekk naan ndigal loolu ak nangu googu rek moo ci am solo ci borom jubluwut di sonal nit ñi yéex xët itam euh, maanaam ci waaye na doon guddi ndax yéen point salaat la fekk mi ngi yéex a xëdd sëriñ bi waxoon na ne na ngeen di xëdd ndax xëdd barke la euh, bokk na ci itam day dëgëral nit ki ci mu mën a woor euh, ku xëdd daal bokkut ak ku xëdd loolu jaam yàlla na ci jublu ne sunna la ci def waaw ñetteel ba li am solo mooy wattu saw làmmiñ saw làmmiñ ci mboolem lu araam euh, ku ko daan def mu bàyyi ko mel ni wax lu dëgg lu mel ni jëw mel ni rambaaj mboolem mbir moo xam ne daal am solo loolu moom sàkku nañ ko ci euh, saa su ne waaye rawatina bu weer ko jotee ne bi alayhi salaatu salaam nee na képp koo xam ne mu bàyyi wax ay caaxaan ak jëfi caaxaan yàlla amul soxla ci ngay bàyyi lekk ak naan loolu tam mooy waru dëgg koor bàyyi lekk bàyyi naan te e, bàyyi wóor def lu xaraam sëñ bi nee na loolu waru la waaw fa rubba saa'imin ma'a al-jamaa laysa lahu fiihi e, siwal majaa kon yàlla nañu yàlla nangu suñu jaamu yàlla waaye àggale ñu ci ramadaan te may ñu e, toggoo te fii ñu ci jaamu yàlla te nangu ñu ñaan suñu bàkkaar yi